ñeenti waxto genn wal ci radio Futur Media ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd bek ñun xibaar yi wolof yi ci yaatal ngeen ci yand ak Makumba Bey Guet Ndar ba tey jàppante yooyu wéy diggante mool ya licence de pêche yi la ni xaar bi dafa jéggi dayoo fi melni nii tay xeer ak lacrymogène police mbir mi ëpp ko doole ba gendarmerie wal ci ñaari auto tal nañ ko fa fekki ci njalbeenu xibaar yi mohammed Nabi Silla police ak gendarmerie ci xex bi ñi ànd ngir sécurité ci réew mi ci njaareem teg nañ fa loxo lu toll ci juróom fukki nit ak euh, ñett euh, juróom fukk ak euh, juróom-ñaar ak juróomi téeméeri cartouche calibre 12. Alaaji baare Ndiaye mi faatu ci citerne bay manque Manqudus waa këram nag nee ñu gëmuñu ni dacee cee tàbbi noonu rek daal di faatu ndax certificat de genre de mort bi mu wane. des na ca fekk itam sunu ndaw la ca gox ba di lamin Ba DER délégation à l' entrepreneuriat rapide ni lim leble woon téeméer boo jël juróom benn fukk ya fayu na ko. ba tey mu des am na ñoo xamante ne nii dañoo leb mën a fay tëdd ci xaalis bi seen directeur général nii ma nga ca contentieux délégué général bi ñaareelu pàcc bi tàggat yaram la marché li ci yéene kaay yi. wali ndar nde li ñu leen doon xibaar ci suba ba tey seddagut Mouhamad Nabi Sylla maa ngi lay nuyu. waaw euh, Makumba maa ngi lay fay. Euh, ba fi mu ne nii kon euh, jàppante bi diggante takk der yi ak ñii di mool yi di wéy. waaw yaa ngi woon ci alkaati yi nga xam ne nii jot nañu am ay gaañu gaañu lu ëpp fukk ci ñoom daanaka jot nañ leen euh, euh, maanaam euh, faj ñenn ñi bandi seen loxo ñii seen bopp toj mu doon loo xam ne daal moom la loo bi indi ci wàllub ñi nga xam ne ni itam dañu doon manifester na ñoo xam ne toj nañ leen loxo ñaari woto doon na loo xam ne dañ ko taal benn bi AD la nekkoon ci kanamu cour d'appel beneen bi auto particulier la nekkoon ci kanamu Sonatel li aju ci wàllub Senelec bi daanaka toj nañu lépp ak ay doj laata sànd policier intervenir ci jamono ji nag alkaati yooyu indi nañu renfort bu gendarmerie nationale euh, gis nañ fi léegi colonel Souleymane Cissé commandant de légion nord de gendarmerie ñëw ak euh, lim bu takku ci ay gendarme ñoo ngi taxaw nag euh, ci jamono ji daal ci diggante li nga xamee ne rek moo di place Faidherbe fi ñuy defar ak lii di pom saf Malick Gueye li nga xamee ne nag aju ci wàllu l'armée bi sax génn na Makumba gannaaw ñu gis leen ñu positionné daal ci yoo xam ni dañuy wattu kaaraange gi bàyyi seen kaaraange bi nga xamee ni moom la ñu nekk ak itam pom bële di Pom Masek Ndiaye li nga xam nag aju na ci wàllu nappkat yi li ñuy jooy moo di licence de pêche yi nga xam ne ni deux mille vingt ñu wax renouvelé ñu di daal fay nañu li ñu waroon a def te dañu war a xaar ñu jébbal leen licence yooyu waaye di fàttali nag li nga xam ne indi na ci gàllankoor moo di yenn ci nappkat yoo xam ne amoon nañu ay amande daaw yoo xam ni jotaguñ ko fay eh, moo tax daal licence yooyu kenn joxagu leen ko lii daal doon loo xam ni moo di situation bi jamono ji ëpp na juróom-ñaari waxtu fu ne lii di lacrymogène ay doj daal di lëmbe dëkk bi di ndaan tey jii ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax euh, naka noonu yow mi nga xam ne yaa nu koy toppal saa su amaatee leneen lu ci yokk lu ko jar rek ñu fekk siwaat la Mouhamed Nabi Sylla wéy ba tey ci police ak gendarmerie ñoom nag ca diwaanu Njaareem bi la yoon ci raafal gi ñuy raafale fan yi ndax ñàkkum kaaraange gi jàpp nañ fa nag lu toll ci juróomi téeméeri cartouche yoo xam ne nii ba ñuy wër nit ñi lan doon raas ba gisaale ko jàpp nañu itam lu toll ci juróom fukki nit ak juróom ñaar Babacar Diouf 500 cartouches de calibre 12 la ñu tek loxo police ak gendarmerie ñoo lekkale seen doole don rahas dëkk bi di ndiarém mu ngi amé won ci guddi altine jàpp talaata digënté 20 h japp 5 h du matin bu cartouche yi oto bi ak ki ko doon dawal ñi nga xam ne ñooy takk der yi teg nañ tamit loxo ñeenti nit ñoo xam ne ni danoo fekk ñuy jëfandikoo wala sax ñu yor yàmba juróomi nit ñoom yoo xam ne ni danoo màndi bay lang tamit teg nañ leen loxo opération bi tax na police ak yi teg loxo ñaari nit yoo xam ne nii dañ doon jëfandikoo li ñuy wax gens beneen nit koo xam ne da doon fippu ci seeni kanam tamit takk nañ ko loxo ak kenn koo xam ne nii dafa yore woon ngànnaay te amu ci ndigal booy xool fanweeri nit ak juróom-ñeent defal lañ leen li ñuy waxee vérification d'identification police ak gendarmerie fourrière nañ fukki oto ak benn ba pare teg ci immobilisé lu toll ci juróom benn fukk ak ñetti moto yoo xam ne ni da doon daw ci léppoo lépp booy xool police ak gendarmerie teg nañ loxo juróom fukki nit ak juróom ñaar yoo xam ne ni dañ leen fekk ci mbedd mi Diourbel RFM Babacar Diouf. Alaaji Baara Ndiaye démb ci waxtu wi tembe maa ngi leen di xamal ni. moom dafa faatu ci keesu citerne goo xamante ne nii day euh, manque du foofee ca euh, dëkk ba di euh, Enampor waaye nag gannaaw bi daal bi résultat yi génnee ni ñu wanee ni noonu la faatoo ay bokkam ak jegeñaaleem nee nañu seen xel tey na Lamine Ba. njabootu Mendy nekk ca Boutout naqar ak tiis la ñu amee démb ba léegi ginnaaw ba ñu gisee seen doom bi mu faatu ci ab biir si citerne camion vidange ca Mamatoro nekk ci wetu commune bu Ziguinchor. mbir mi nag nee nañu métti na leen bu baax a baax. comme ni nga ko gisee ah ñoo nga gis nga. vraiment méttit euh, vraiment ak jaaxle. ci loolu lañ nekk parce que kii nga xamante ne mooy Baara Ndiaye ñun ñoo yaroo benn kër këru nijaayam la nekk. démb ñoo nekkoon ensemble parce que ñun ñoo toogoon doon seetaan euh, match ñu doon naanaale ataaya. Boubamendi di ab doomu bàjjanam nee na njaboot bi jot na li nga xam ne rek moo di certificat de genre de mort bi waaye nee seen xel tey na ci l'accident bi nga nañu kanam. certificat de genre d'animation bi après constat bi gis nañ ni daal vraiment dafa am problème kii ay traumatisme ci ci wàllu bopp bi. ba pare soo seetee bi ci suuf daa dàmm dañoo fekk kanam te situation bi vraiment metti na trop nga ku ko gis ku nekk mënu ci rafet munu cee rafet njort. jaboot ji nag jamono ji ñu ngay xaare bu baax a baax li nga xam ne dina tukki ci l'enquête bi nga xam ne gendarmerie ubbi na ko ngir mën a xam lan moo xew ci dëgg. ndante ñu ngi xaar enquêteurs yi ñu def seen liggéey ba pare parce que fu mu ne nii ay professionnel lañu après ñoom dinañ leeralal mbir mi. El Hadj Bara Ndiaye ak apprenti am démb ñoo ngi leen fekk ci biir citerne ab camion vidange moom nag buñ leen di gis. bakkanam rotoon na ba pare ci jamono ji nga xam ne nag apprenti bi mu nekk loon moom ñoo ngi ko téye ci hôpital régional bu Ziguinchor ngir ñu mën ko faj Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. ak RFM kumpa jeex na. forum du premier emploi waa tey jii mooy li Mbagnick Diop bu MEDES di amal di bëgg a jàppale gone yi ñoom foo xamante ne nii fa la ñuy tàmbalee yéeg ndànk-ndànk ci wàllu liggéey lu bëree bëree bëri ci ndaw ñi yori sa tey jii nag demoon fa waxuñu saxum xëy waaye stage rek am mu fukk Amadou soxna si ci salon bi yaakaar ne diplôme comptabilité management des affaires étrangères waaye bobé ba mënul am stage sax te ko. premier emploi mooy liggéey bu njëkk moo tax ma ne naa ñëw man it ma tante waale sama chance mën fi am emploi même bu dee stage aussi bëgg naa am stage bi ma paree ak léegi am na ñetti at non stage sax pour am ko si réew problème la. Khady <laughs> Nder moom tamit loolu lay dund maanaam ñàkkum xëy bi ñaari at ak léegi mu pare formation wam boobee ba tey ma ngay wër liggéey ci wàllum hôtellerie ak lii di restauration. maa ngi xëy di déposer mais jusqu'à présent daal mooy loolu. mooy lan mënuma fexe ba amagum

doctorat ak ba pare du mu ñëwoon teewee lii di cérémonie officielle bi ministre d'état secrétaire général bu présidence di fàttali politique wàllum xëy bu gouvernement bi rawatina ci ndaw yi maanaam ñaareelu pàcc bu plan Sénégal émergent bi ñu naan ko capital humain ngir yombalal xëy ñi nga xam ne ne ndaw yi. benn ci bànqaas yi nga xam ne moom la gouvernement bi sos nag ngir mu wutal leen liggéey mooy délégation à l' entrepreneuriat rapide tey jii nag euh, ci ndaje moo xamante ne ni amaloon nañ ko jagleel ko wàllu partenariat ñeneen ñoo xamante ne ni dañuy jokkalante ak ñoom ci la seen délégué général waxee ni luñ lab la woon rek fi mu ne nii téeméer boo jël juróom-benn fukk ya fayu nañ ko ci wàllu bor mu des nag ñoo xamante ne nii ñoom leer na leen ni mën nañoo fay waaye dañoo lànk ñooñee nag dugg nañ ci contentieux Pape Amadou Sarr ñu déglu ko ci micro Anna Rocha. remboursement yi njëkk yi si Sénégal yëpp toog nañ lu ëpp cinq pour cent donc ñu ngi rafetlu loolu jigéen ñi ak ndaw yi ñu ngi fay am na ñoo xamante nag euh, ñu ngi nu mu tudd fayaguñu wala ñu am ay problème ñëw nañu seet wax nañu ñoom euh, expliqué nañu euh, nuñ koy defee am na ñu am ay problème de nu mu tudd paiement ñu defal leen ay différé pour que ñu mën a fay et képp koo xamante ne nag. bañ nga fay wala fayoo comme ni ñu koy waxee rek dañu lay teg si yoon bu soobee yàlla. mu nekkoon euh, Pape Amadou Sarr délégué général. jombul beneen jotaayu xibaar ñu àndaat ak yéen ci ndaje mi nga xam ne nag euh, tey jii moom moo leen euh, taxoon a jóg ñeent fukk ak ñaar ci ay milliards moom nag la banque mondiale dugal ci gone yu tuut tànk yi di euh, petite enfance di juróomi at lay doon projet boobu nag euh, li ñu bëgg ci année yu njëkk yi mooy ñu daal di leen koy jàppale mooy xale yi nga xamante ne nii ñoo amagul at ba ba ñuy àgg juróomi at ci juróom-ñaari région ci biir euh, réew mi yokkal leen nag ci wàllu indice de développement yoo xamante ne nii mooy yi munta ñàkk ci gone yi paj ma ak njàng ma ak la ñuy soxla ndaje mi tey jii la woon Aïssatou Faye Bodian ci ñaax téeméer Sénégal daal di nekk euh, ci téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar euh, ci wàllum dundin bu mucc ayib coordinateur bi gis ni buñ ko bëggee améliorer faw ñu jaar ci tout tànk yi Alioune juróom-benn fukki case de petit ak juróom-benn nañ leen nañ ko tabax ci ci juróom-ñaar région yi. na lañ tabax aussi téeméer ak juróom fukki classe préparatoire mais aussi fàttewuñu mbirum daara xam ngeen coow li am ci mbirum daara yi temps yi daara dañ koy maintenir moderniser moo loolu moo ñaar région yi nag mu ngi daal di aju ci ñetti ponk ngir dundinu xale bi gën a mën a ñoŋ. million bu manqué ñaar ci xale la ñu beneen bi mooy ciment de naissance baram kayitu juddu muy problème bu rëy a boo jëlee téeméeri xale mën nañu wax ni ñeent fukki yi daanaka dañuy dem ba école primaire ba commencé jàng te ak duñu duñu am kayit ñetteel bi mooy li li ma doon wax léegi ci mbirum préscolaire ñu ciblé ci deux cent ñu mën a am accès au préscolaire même ñu bind ak lire correctement looloo tax projet bi mu daal di am solo bu baax a bu ñu sukkandikoo ci ministre bu éducation nationale Mamadou Talla. investissement la boo xam ne bu am solo la ñu gëstu ba pare ñu ne soo defee benn franc CFA rek si investissement si période boobu day mel ni que def nga lu mel ni seize francs si un enfant boo xam ne moom il était il avait à l'âge d'adolescence ak projet bi dina daal dugal loxoom ci région yile Fatick Matam Kaffrine Kaolack Tamba. Tambacounda Kolda ak Diourbel ndaxte foofe la ñu gis ni dundin nii dafa xaw a am ay jafe-jafe sooxe lool ci tuut tànk yi ngir ñooñu ñu am dund gu mucc ayib. syndicat bu nekk ca assemblée nationale njiit la soppiku na Jibril Sall la ñu fal. mu ni nag heure supplémentaire yi ak yeneen jafe-jafe yi ci liggéey bi bëgg na bala moo bàyyi moom nag ñu def ci jéego bu baax a baax ñu déglu ko ci micro Adja Mari Thiam Je compte sur l'engagement de tous les militants et militantes. militant peuple syndicalisme participatif ou le de développement askan wii dina ci gis boppam ci loolu nag faaw ñu dugal ci suñu jot suñu engagement ngir loola mën a antu. mu nekkoon euh, njiit lu bees li di euh, syndicat ba nekk ca assemblée nationale tey jii di bëccëg bi nga xam ni ci la àddina di euh, waxtaane wàllu cancer ñeenti fan yu février ñu ni sii ci Sénégal fukki junni yu kaa bees yoo xamante ne nii am na fi wopp ju doy waar nag waaye terewul am ñoo xamante ne nii dinañ dem ba tane aw mbay jàngoroy cancer njéeme xam na ko bu baax ndax moom ci boppam am na ko bi jàpp ween waaye yaayam si waxtu woowu moom itam mu ngi dund ak cancer bi jàpp ovaire bokk ci butitu jurukaay kon njéeme ne lu waaye xam-xam feebar bi mu gën la koo xam. dund naa ko waaw presque ñaari yoon ndax sama waajur jigéen moom it euh, amoon na feebar bi presque moom moom rek laa taloon instant boobu. waaw parce que man euh, bi ma demee di contrôlé wu dañ ma dama dem ñu ne ma est-ce que li daal ma may dem di defaat euh, diagnostic yeeg yooyu boobu laa la ma leer na xam naa ne xëy na dugg naa ci feebar bi mais boobu nag sama yaay laa gënoon a tal ak man. tey jii nag gannaaw ba mu fajoo juróomi at docteur bi ko doon suivre ne ko jàngoro ji daanaka jeex na ci sa yaram mu ci sant nag. mun na leen euh, naa ne mbégte la sant yàlla rek tamit bu bëree bëri parce que tamit boo duggee ci phase bu mel noonu ba toll fi nga toll ah dangay mën a dund rek yaakaar. bu dee sax jàngoro ji buñ la ko waxee dee rek ngay xalaat taxut njéeme ne tàqalikoo ak gëm-gëmam di pas-pasam. parce que feebar bi moom toll na koo xam ne moom. wax dëgg yàlla metti na metti ba xam ne. ku amul euh, Pastef amoo courage mënoo ko dund man nag xëy na damaa jël lépp rek teg ko ci loxo yàlla. gannaaw nag ba mu jógee ci coono bi wér ci feebar bi njéeme ne li muy ñaax mbokku jigéenam yi ak képp ku nekk ci Sénégal mooy di teel a jukk di nemmeeku yaram yi di def dépistage précoce ngir mën a daan feebar bi bu la songee ndax faj bi dafa yàgg te metti vraiment dama leen ci ñaax lu bëri bëri bëri bëri bëri parce que fi mu nekk nii nekk euh, ci gox ñu ne la kaay dépistage am na wala ñëwal contrôler def may sa ñu may la ko gratuitement dafa yombul mais dafa am ñoo xam ne dañoo ñemewul dépistage euh, moo tax nag toujours may ñaax sama mbokk jigéen yi surtout sama mbokki jigéen fu ñu toll nañu dem di def ci dépistage yi. cancer bi jàpp wen nag at mu jot dina faat jigéen ñu bari fii ci senegal li ko waral nag docteur yi ne bu ñuy ñëw la daanaka dafay fekk mu trop tard. tàggat yaram Youssouf maa ngi lay nuyu. di la fay Makumba di nuyu ñëpp. Mhm. ñu dooree ko ak euh, karaté ak euh, kii di ant Diouf di ndaw boo xamante ni. mu ngi ci euh, fii ci karaté lay def karaté club bi nekk fële ca Mbacké moom nag ndaw bu ràññeeku la ndax am na médaille yu bëri ci carrière yu ci mujj sax mooy ci championnat du monde championnat d'Afrique yi amoon kon ci euh, zone ouest bi euh, ca Bamako moom nag lu muy sàkku mooy ñu gën ko jàppale su ko defee mun a teewal Sénégal ci ay jongante daal di indil réew mi ay médailles ñu ànd ceeg Marema Diop mi dajeeg moom. Anta Diouf di dox doxinu kàngam championne la ci wàllum karaté mu indi lu ëpp ñaar fukk ci ay médailles fii ci Mbàkke ci ñaari at yu carrière dong ay atam toll ci fukk ak juróom-ñeent Anta di wëy di sargal dëkkam bi di Mbàkke. instant maa ngi am 20 médailles d'or 2 argent 2017 laa tàmbalee comité 2 de carrière. dugg naa fi Guinée dem naa fi Mali dem naa fi Botswana mais ci des si Afrique bi la Sénégal médaille d'or sam na zone ouest ba Mali laa mujjee indi loo Mbacké ci salle bi muy entraîné fii ci Mbàkke lañu ko fekk Anta Diouf nekk royukaayu ndaw yooyu waaye itam di ku ñu fonk lool bu dee sax bu génnee ci biti duñ ko jox gëddëm bi mu yellool. métti na torop te suñu sañoon tamit ñun nit ñi demee di di gagné ñu ñuy jéem di ñu wane ndax loolu tamit avantage la ci ñun mais da ngay dikk fi gagné say ay médaille d'or yu bari dikk fi am ay mais doo dégg ku ci wax wala ku ci def dara. saalam boobee nga xam fa lay tàggatee yaramam Anta Diouf di am léeg-léeg ay jafe-jafe lu ni mel tax muy saaxu ndimbal ci autorité yi waaw manqué nañ ay moyens torop da suñu soño dañuy am ay tap yu baax salle bu normal bo xam te di nga mëna liggéey normal tap bi ak nu mel ak salle bi tay so bëggoon a liggéey normal sax doo ko mën ki nga xamné nak mom mo moo royu kayam ca bu muy ndaw ba légui di màgget sec suma koy xool muy kiraate man may am force wala ma ak mom rek maanaam lu taxaw sama kanam man dootuma ko ragalé Ante diouf nek nak ko xamanteni ko jara bàyyi xel la ndax kat mu ngi bay waram ci karaté bi mu nek lu ni mel tax na muy saaxu ndimbal ci autorité locale na ñëpp ñu nekk senegaal ndax kat fi mu gis boppam mooy ci pëjëm yi nekkee ci biti réew ma Diop fii ci Mbacké RFM. jaajëf euh, marema ñu football ak euh, Lidi di euh, France 23e journée Ligue 1 bi wara dor tay na ci match yi Monaco bu Keita Baldé Diaw dalal Angers match bobu kon 18h les donnes, 17h Dakarou Lille Rennes lay dajel Nantes Paris Saint-Germain. Euh, loolu kon mooy affiche yi am tey foofule ca France match yi kon euh, ci kanam tuuti euh, lay doon sunu réew équipe nationale bu jigéen ñi jamono yi ñu ngi regroupement di waajal match bi waroon dox seen diggante ak Libéria moo am kon weeru mars léegi dañ ko dàq ba weeru avril loolu nag war a coppi lu bëri ci anam yi nga xamante ne ci lañ fas ne woon kon waajal match boobu ñu daan ceeg Soda am dàq gi ñu dàq jogante gi waroon dox ci diggante Sénégal ak Libéria ba jëmmi jamono ñeel éliminatoire CAN féminine 2020 amul benn coppite gu muy indi ci li nga xamante ni tegoon nañ ko ngir waajal gaynde jigéen yi bu ñu sukkandikoo ci responsable foot féminin fii ci Sénégal di Seyni Ndir Seck. gëm na dina am benn coppite ci li nga xam ne moom lañ waajaloon pour préparer suñu éliminatoire yi. parce que tey jii nii match boobu dañ ko dañoo fexal bés bi wante lu tax ñu fexal bés bi mooy que ni dañoo war a am benn tournoi boo xam ne war nañ ko dem Sierra Leone pour joŋante fa. laata date gi ñu jàpp nag ngir double confrontation googu Sénégal dafay daal di bokk ci tournoi UFOA A bi mu di ab compétition boo xamante ne dina tax ba gayndey jigéen yi gën a waajalaat seen bopp bu ñu sukkandikoo ca kaleen di tàggat di Mame Moussa Cissé. ndax euh, entraînement njàngu euh, jigéen euh, xale yi xam fan nañu toll léegi nga xam ni def nañ ko yàlla mel nañ lu am possibilité jouer contre Gambie weer yi passé naa naama tournoi googule dañ ciy sukkandiku ngir gën a waajal seen bopp laata éliminatoire kan bi waaye nag teewut staff bi bu gisee yoon gu mu jaax ba jël ko dina ko def comme niñ ko nemmeekoo woon fii ci Sénégal ci góor ñi te ndawuk Serigne Saliou Diaye jël ko. jaajëf solo Thiam Makumba fa la ñuy yëpp. jërëjëf Youssouf. Le marché sur RFM. le marché Koumba Sandiane Faye daleen jàmm le marché tey yittewoo lii di soble geeg pomme de terre bi waaye yitte seen i njëg njëg yooyu sax ñu nemmeeku ne dafa yokk donte dañ leen àpp ne fii la war a yem mu doon mbir mu jaaykat ak jëndkat di naqarlu Oumou Kalsoum lii demal nañu Tilène reportage. Tilène fii li di légume nekkul lu fi manqué daanaka lépp a yomb wute lool ak li nga xam ne moo di soble beeg pombiteer bi li nga xam ne dafa yokk fan yi lu ci mel ni saaku ceeb bi moom it yokk na mu nekk loo xam ne jaaxal na ñi di mère de famille yi marché bi metti na torop torop torop na ci gor ñi japp jigen ñi japp dee nañu torop torop sonu nañu yo jamono bi mom duulin lañu wax ak ceeb te ñun xam nga rek ñun suñu réew ñun ceeb rek lañu gëna bëgg te dépasse bi ñu koy yok tuuti ndax dépasse bi metti na ci jeeg instant yi ndugg mom bari na la marana Diallo yor ab cantinam ci biir marché wi mom nee dafa jaxlé lool ci ñëg yu yok yi ñu wax ne nekkul luy défar seen affaire instant yi ni kay mom ceeb da yok diwlin da yok soble da daa yokk terre da yok wa instant wax dëgg yalla mom instant dara bu quoi instant ni ñoom ñu ngi koy jënd ñun instant 8250 mu ay 6000 ay 7000 diwlin bi tamit aussi instant ni 20000 lay jar te mën nga mën nga jaar ay 15500 mën nga jaar ay 15 pomme te tamit 8250 la ceeb 19000 lay jar toll ci ñeent fukki at ndey wàllu juuf ñu fekk ko muy ndugg moom nee na dafa jaaxle loolu ci yokkute njëg yi moom mile ngi woo njiit yi ngir ñu xoolaat yokkute yi ñuy indi xaas bu bari dañ lay boo duggee ba ñu fayeeku la ba pare da sax tiit da nga naan xanaa man xaas dafa wadd wala ñii dañ ma triande boo ko calculé waatee noonu lay toll jamono metti xanaa ñu dimbali ñu rek wàññil ñu ko ñun bu ñu ko wàññilee moom dinañ jël yokkute gi am ci njëkk yi jaaxal na lool ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi jote dajeel ci njëgu soble beeg pombiteer bi bi nga xam ne ju nekk juróom benn téeméer ak juróom fukk lay jar fi mu ne nii mu nekk ñeenti téeméer yoo xam ne yokku na ci prix bu njëkk ba ci mbir moomee UNACOIS Yeessal di joxoñ baamatuma lim jàpp ne moom moo waral boobu lépp yokkute njëkk directeur exécutif bi jàpp ne ab yokkute la bu yeen

en plus war na nekk diggante 3 ba 12 pour cent mais loolu dans 6 mois lañ koy appliqué maintenant lan la nguur gi war a def ñoom am nañ mécanisme bu ñu war a appliqué fu ñu war a sukkandiku ngir lu meloon bu amee ñu réglé ko ci saa si dans les meilleurs délais. def li wax ngir lépp teguwaat ci yoon benn ci kuréel bi défendre consommateurs yi di Ascosen gis ne loolee euh, soble beeg pomme de terre bi doon jóge bitim réew te jamono ji ñu aay ak moo ko waral Momar Cissé la ñu toftal ci njit la. ñu xoolee pompiteer bi ak soble si nga xam ne moom la ñuy importé nekkul lu ñu arrêté prix bi arrêté wuñ ko fixé wuñ ko réglementé wuñ ko vente libre la en fonction de l'offre et de bu ñu xoolee diwlin bi en vrac bi parce que dëgg yàlla dañ ko amoon benn prix bu ñu ko homologué woon mais l'huile en vrac mais les autres formats nekkul format yoo xam ne dañ leen excès d'autorité wala ñu amul donc ñun alerté won nañ né marché bi bidon 20 litres bi nga xamné mo joyé ko ci marché communautaire mu ngi wàññeeku et que marché malaisien bi jógee ko bu jaré douane prix bi do ko mëna jaay ce qui fait que l'offre communautaire nekkuloon offre bo xamné mëna mën na couvrir demande loolu moo waral tension ci marché bi nga xamné bo xolé bidon 20 litres amu ci vingt litres nag bu ñàkkee rek yeneen format yi day am yokkute pompiteer ak soble bi bu ñu xoolee ne marché bi importation bi dañ ko tëj donc li fi nekk moom la ñuy commerçant yi di jaay mais comme fixé wuñ ko prix yi fixé wuñ ko par arrêté buñ koy jaay ñu ngi koy jaay ci diggante offre ak demande donc amuñu benn possibilité pour verbaliser leen. le marché jeex na tey jile ñu jaajëfal umu Kalsoum li dig daje talaata gi di ñëw.